wa ala alihi wa ashaabi ajmain mbokk yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen masaw coono di leen balu aq te itam di leen bal aq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala sunu jaamu ñuy def ci weeru kóor yépp yàlla na ko yàlla nangu di nuyu sunu kilifa sunu wasila ay cheikh Mouhamadul Moustapha si di nuyu sunu mbokk yi fi teew ñu jiital ci ki nga xamee ni tey moo war a def waxtaan bi muy Mouhamadul Amin Mbàkke di nuyu gan gu tedd gi itam di Serigne Abdul Serigne Mbàkke di nuyu ñu jóge bokki tubaay yépp ak bépp sang bu fi teew di nuyu sunu maam xalifa ak sang yi fi teew yépp tey waxtaan bi mu ngi tudd crise économique et finance islamique mooy jafe-jafe yi ñu am ci wàllu koom-koom ak yi nga xamee ne mooy jokkalante walla jëflante ci koom-koom ci alal ci lislaam loolu mooy waxtaan bi bu soobee yàlla ki ko nar a waxtaanee Mouhamadul Amin te ñépp xam ko fii ci réew mi mi ngi bokk na ci formation mu jànge en France am maîtrise en mathématique mi ngi ko amee ci université bu Pau mu am troisième cycle am aussi ci management mi ngi ko amee ci Lyon la ko amee en 1993 mu am lu ñuy tuddee MBA mi ngi ko amee aussi aux États-Unis ci Virginie mu am diplôme supérieur ci institut bi nga xamee ni moo gën a siiw ci àdduna bi nekk ci Bahreïn mu am fa diplôme supérieur mi ngi ko am ci à 2011 mi ngi ko am ci finance islamique mu nekk expert ci mi ci wàllu finance islamique mu nekk itam invité ci université yu bari ci àdduna bi loolu li muy tegtale mooy ni ci wàllu njàng ci thème bi ko jox yàlla dogal na ni peeg na ko mu nekk fondateur institut africain ci wàllu finance islamique mooy créateur bi di fondateur bi nekk actuellement le directeur ci wàllu expérience mu liggéey États-Unis ñetti at liggéey ci Citibank aussi ñetti at comme directeur PME ci wàllu bank boobu kon yàlla dogal na ni comité scientifique bi xad aatal sax rubbama baariyaha mu des nag waxtaan wi ni mu ko nar tëralee mu soobe yàlla dina indi problématique bi wax yi ci aju yépp li tax ñu soulever thème bi pour mu jeqi ko wax ni yee tax dana ko indi maanaam dina wax fondement yi cëslaa yi wax principe yi wax produit yu finance islamique bu ñëwee ci ñaareelu tomb bi fas yéene naa wax crise finance bi am jafe-jafe ci wàllu koom-koom ci wàllu alal bi am lan moo ko waral ak yan jeexital la am ci àdduna bi tomb ñetteel bi mu wax waaw nan la ci lan ci nan la finance islamique mën a nekke saafara jafe-jafe koom-koom ci àdduna noonu la fas yéene articuler waxtaanam nu ñaan yàlla yàlla may ko tawfiix ci loolu bu ko defee ñu bàyyi ko kàddu yi bismillah min sheytaan irajim bismillahi irahmani irahim wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa maolana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwan wa tamkin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen bokki julli di fi teew Euh, ñu ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen baalu te di leen baal te di tàmbalee sunu nuyoo euh, ci rafetlu euh, invitation bi ñu mbooloom mustarshidin wal mustarshidaat woo ci jataay bi ngir waxtaane sujet bi ñuy wax crise économique et financière et finance islamique mu doon loo xam ne ñun jàpp nañ ne suñ xam-xam lu ci xeebu la waaye xen ñoom seenu kubbiku ak seenu yaatu moo tax ñu wooñu ci kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax di leen ñaan ñu jot luñ googu ci sunu kilifa sëriñ Moustapha si ibnu Cheikh Ahmad Tijaan Al Maktoum di leen xamal ne itam nuyoo boobu laatu ñu fi ñëw ñu ngi am ndigalu Cheikh Sidil Muxtaar euh, di xalifatul am li tarixatul muridiya euh, yëgal ko jataay bi muy lu mu rafetlu euh, di loo xam ne xolum da ci sedd lool mun nañu bu ñëwee nañ ko jot li nuyoo boobu ci mbooloo mustarshin wal mustarsidaat jot li ko nuyoo boobu ci tarixa tijaniya jot li ko nuyoo boobu ci Cheikh Ahmed Tijane Al Maktoum naka noonu itam nuyoo boobu it moom lañ jële ci sëriñ Cheikh Khady di xalifa maam Thierno Ibrahim jële ko ci sunu wasilu bopp di sunu wayjur di sëriñ maam Thierno xalifa sëriñ Cheikh Awa Balla ah, ñoom ñëpp nag ñu rafetlu jataay bi te ñoom ñëpp seen i dénkaane moo di ñu ngi leen di soññi lu ngeen mën a gën a jaxasoo ñoom ngeen def ko ndax mag ñi bañ ci tolloo jaxasoo bi mel noonu lañu amoon diggante Sëriñ Tuubaa ak Alxaaji Maalik bët gu ne jaxasoo nañ ko ah, ñoom it seen i baay ba suñu baay ñun nii ak seen i nattangoo bët bu ne jaxasoo nañ ko kon nag soññ ci baax a baax euh, ndax euh, Sëriñ tubaa dafa wax ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sawaun intama ila al aw intama li ahmad tijaani aw li siwa aw li siwahuma min al aqtaabi id kulluhum qatan ala sawaabi kon nag Euh, diggante bi lu ci des rek ñun la dese waaye ñoom rafet nañ seen diggante euh, li may dolli ci maslaa moom itam mooy fàttali ne Cheikh Abdoul Ahad mi fi nekk xalif général des Mourides mas naa wax ci rajo bi ñëpp di ko dégg ne Mouride ak Tijaan ak ñu ngi mel ne ñett ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay ki xees ki ñuul ki xeereer kon nag foo ci tam wala nga xas kenn ki jàppal ne tam nga ñi ci des kon kenn mënta tamu Mouride boo tamee Mouride tam nga Tijaan Euh, li ci mujj itam mooy loo xam ne dinaa ko def ci lu gàtt mooy bi mu ñooy sama wajur sëriñ maam Thierno mu sëriñ Cheikh Awa Balla di ko tàggu si di ko yëgal mu rafet ko xolum sedd ci lool mu ne ma waxam jataay yu bari yoo xam ne dox na ci diggante euh, yoon wi ak euh, waa kër ma tànn ñaar wala ñett yu gàtt natt na ma jataay boo xam ne sëriñ maam Thierno Ibra ñëwoon na seet si Alhaji ci waawoon bi mu ñëw mu la ko njaboot gépp ne ko xanaa sëñ Mansour ak sëñ Abdou xam nga ne say jarbaat lañ mën koo xam naa ko ndax soxna Safiyatu wax ma itam euh, diggante sëriñ Cheikh Awa Bal ak sëñ Babacar Si ndax xam ngeen ne Tiwaawan boo demee fekk fa quartier kër Cheikh Awa Bal la sama baay di xalifa sëñ Cheikh Awa Bal la de 1950 fa jëndee kër pas-pasub sëñ Babacar Si moo tax ñu tudd ko quartier booba quartier boobu man mii fa laa juddoo Tiwaawan laa juddoo sëñ bi nettali na ma dama suñ Cheikh Obal moo sànneew ci kër gi de ànd ak mag ñi suñ Boubacar Fall Mbonn suñ Madiane Ngom ànd ak ñoom ziare suñ Babacar ba mu sëñ Babacar seeraat ko lu rëy lu am maanaa ne saa yu ma yéegee sama kër ci kaw dégg nodd ci fee de bi ci wetu càmmooñ gi damay xam ne Cheikh Obal moo ne ci dëkk bi ak yeneen yu yaatoo yaatu yoo xam ne dox na ci diggante yi bi ma ci mujj wax nag ci xese boobu sëriñ bi nettali ma ne ma sëriñ Cheikh Obal 1951 bi muy dem Makka ànd ak ñu bari bokk ci ñoom Alaaji Amadou Assane Ndoye mu ànd ak soxna Umu moom si Hadj Malick yàlla dogal euh, euh, biñ demee ba Madina fa la yàlla moom soxna moom Sidi Hadj Malick biñ demee ba loolu amee fekk Alaaji Amadou Assane Ndoye ànd ak ay muxaddam yu amaana ci yoon wi ñu wax Serigne Cheikh Abal na yow ko di ak soxna Umu yenn bokk baay ndax doomi Sëñ Tuubaa doomi Cerno Ibrahima doomi Alaaji Malick ñoo bokk kon nag yaa koy jullee nga xam ne moo ko taxaw ci Madina loolu lépp ay seere la seere yoo xam ne ñu ngi ko jëmale ci sant euh, ci jëf ci rafet yi ngeen def ndax innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafaraqu euh, loolu lépp nag rafetal googu la ci gën a rafete mooy ci jataayub xam-xam ndax euh, dama doon wax Cheikh Tidiane Sarr léegi ci kanam ne ko rafetul naa taxawaayu mustarshidin wal mustarshidaat ndax àdduna bi dañoo toll foo xam ne dañoo bëgg a jël lislaam delloo ko gannaaw lislaam yi nga xam ne moo jàngal euh, moo civilisé àdduna moo leen jàngal modernisme ñu dem ba gëmloo nit ñi ne leen lislaam diine yu moyen âge la boo xam ne bokkutut ci àdduna mënta adapté ak modernisme euh, bëgg jël ndaw ñi di leen jàngal modèle yoo xam ne baaxut lépp nag li koy mën a xeex mooy lii ngeen di def ndax Sëriñ Tuubaa bi ko euh, colonialiste accusé na ko da ngay jihaad dafa ne man kat damay jihaad waaye ujaahidu bil ulum wa bi tuqaa lii ngeen def nag mooy jihaad ci xam-xam kon nag ñu ko rafetlu bu baax a baax kon nag ci gàttal ñu jéem a waslu ci li nga xam ne moom la jox ni ko oustaz waxe 45 minutes day lu néew te muy sujet bu yaatu boo xam ne ñu bari da leen moom moo tax ñu bëggoon ci wàllu gu gi leeral ci ci lu gàtt ci tënk finance islamique ak économie islamique mooy lan euh, la ci topp itam ñu leeral crise financière bi nan la demee ak lan moo ko sabab ak lan la jur bu mujj bi itam ñu jéem a wane nan la économie ak finance islamique ma doon solution ci crise boobu kon nag finance islamique yaakaar naa bisu set man mi nga xam dama ci yëngu bisu set nit woo ma ne ma finance islamique daf ma intéressé dama ci bëgg a xam dara buñ ci tàmbalee waxtaan lu xóot mu ne ma dama cee bëgg a def sama carrière ba loolu am na ku ma dégg sax barki dem mu ne ma réew mi koo dégg mi ngi wax ci finance islamique ma ne ko da nga afam loo réere du réew mi kese àdduna bépp la daanaka ni mu intéressé àdduna bi réew mi di gën a dellu ginnaaw boo demee ci julli yeeg ñi du julli teg tubaab ak ñi du tubaab ak ñëpp finance islamique lañuy waxtaane loolu nag ma damaa jàpp ne mbiri suñu borom la ci mbir yi mu ko jaaree nag bokk na ci mooy wane bi nga xam ne waa Moustarchidine proposé nañ ko crise économique ak financière bi ci li ko gën a jox doole la te xam nga ne crise économique ak financière bi nga am depuis 1929 crise yu bari jaar na fi waaye crise mujj moom dafa yëngal àdduna bi ba daanaka li ñuy wax capitalisme mu daaneel ko euh, léegi nag bi tubaab bi jógee nag di seet lu waral crise boobu ñu gis ne banque yi nga xam ñoo nekkoon banque islamique amuñu benn jafe-jafe ci crise bi bi ñu ko gëstuwaatee yi dem ñoo xool ne crise bi lépp day fekk loo xam ne lislaam terewoon na ko ci économie et finance bi ñu demee ba ci biir itam euh, bëgg a seet solution yi ñu mën a indi ba système bi stable ñu xool mooy li économie ak finance islamique digle kon nag loolu laa jubloon ngir poser problème bi wane ne sujet bi ngeen ñu jox sujet bu am maanaa la boo xam ne ñi ngi koy waxtaanee fii euh, naga ni daaw mars 2012 invité dañ ma université Harvard bu États-Unis sujet bi ñu waxtaan leen doon waxtaane tey jii ku xool internet bi daanaka xaaju dëkk ci àdduna bi ñu ngi dafay conférence ci débat ci loolu kon nag li ñu bëggoon a tàmbalee ci lu gàtt ndax euh, temps bi dafa bëriwut mooy euh, leeral nit ñi euh, lan mooy finance islamique ak lan mooy fondement yi finance islamique nag du lenn lu dul wala banque islamique du lenn lu dul doxalinu banque woo xam ne dafa dëppook sharia bu nit jógee jëm ci banque dafa bëgg dem wut financement dafa bëgg ñu lebal ko xaalis wala mu bëgg faa denc xaalis wala mu bëgg jënd oto wala mu bëgg jënd kër wala muy dem Dubaay di jënd marchandise bëgg ñu financé ko activité bu mu bu mën a def bu demee ci banque boo xam ne banque bu islamique banque yi ñu am day doon euh, ñooñu lañ lay seen pas-pas mooy fexe ba ñu fajal ko soxlaam loolu it wutiwut boo ñëwee ci finance islamique boo dem ci banque islamique sa soxla lañ lay fasal fajal faji ni nag moo wutee ndax boo ñëwee ci Euh, banque conventionnelle am na nu ñu faje noo xam ne l'islam nanguwu ko ndax l'islam jàpp na ne banque ba ma ngay lor client ba wala client ma ngay lor banque ba l'islam nangut ku loro ndax dafa bëgg euh, lépp tege ci yoon kon nag defi ni moo wute kon nag finance islamique ci gàttal mooy finance boo xam ne dafa dëppook sharia finance boo xam ne boo wut financement ba nga koy am ak ba nga koy jariñoo yoon wa nga ci jaaroo ci banque ba jaar lépp dëppoo naag li alxuraan digle ak sunna waaye finance islamique mën na lu ko gën a ndax finance islamique moo xew moo gën a yaatu waaye boo xoolee ci kanam boo demoon fu mel ne Bahreïn wala Malaisie war nga dem université islamique bu Malaisie da nga fa fekk ay département économie islamique bariwut noonu nag waaye mi ngi tàmbalee yaatu ndax finance islamique xëy na moo doonoon bunt bi bi mu yee nit ñi ci crise bi ne lii kat lu am solo ñu topp ko ci lañ leen ñun kat économie bi ñuy dund xëy na du économie boo xam ne dafa dëppook islam kon nag nañ seet économie boo xam ne du dëppook islam ci lan la wéeru ak nan la mën a taxawee ñu tàmbali koo yaatal waaye li yéeme ci lislaam loo ci gën di gëstu gis gën di gis ay solution yoo xam ne ay jafe-jafe lu am ci économie conventionnelle économie moderne te mënuñu koo gis kon nag ci gàttal gannaaw temps bi dafa gàtt dama bëggoon tënk rek lan mooy économie islamique bu ko defee islam finance islamique euh, leer li gën a yaatu économie islamique économie conventionnelle économie bi ñu nekk mooy ñu di ko wax économie politique mooy ñi jàng euh, njàngum français ñu bari jàng nañ ko da leen di jàngal économie libérale wala économie socialiste wala théorie keynésienne tàmbalee ko ci Adam Smith mooy économie bi nga xam ne moo domine lépp ci àdduna bi ndax xam ngeen économie communiste doxoon na waaye bariwut succès ba euh, daanaka mën naa mën naa ne jaax na ci àdduna bi économie libérale boobu nag li ko fondement boo nekkee première année université li ñu lay jàngal mooy théorie de la rarté bien économique li nga xam mooy jariñ nit ci kaw suuf lu lu jafe la comportement économicus li ñuy wax comportement économicus mooy doomu aadama ju nekk day jóg ngir jéem a maximiser profit seet njariñam mu seet nu nu mu ko gën a yaatale ba mu ba mu ba mu bari doole euh, loolu lenn la ci théorie yi maximisation du profit boobu ñu wax nag boo ko yaatalee loolu lépp li ko lal boo demee ci économie politique moderne bi gën a yaatu boo xoolee ci fondement yi bu ñu la jàngal Adam Smith di ko lal mooy xel ak xalaat tubaab bi dañoo jël diine teg ko fële jël seen xel ak seen xalaat ak seen i expérience ak fi ñu jaar daal di génne xam-xam boo xam jàpp na ne li moo gën a jub ngir ñu mën a doxe am réew ci économie ndax am réew bu nekkee ñii dañuy xëy bay ñii xëy gori ñii xëy dem ci banque ba ñii xëy dem du Dubaï kenn ku ne sa activité économie loolu nag ni ko mën a nose ba réew mën ko jariñoo nosin woowu euh, li ëpp ci li àdduna bi doxee nosin woo xam ne xelu doomu aadama képp euh, moo ko nos loolu nag muy wute bu njëkk moo ko économie islamique économie islamique lu jariñoom xel la ndax lépp ci lislaam da ngay jariñoom sa xel ba mu xóot waaye nag euh, xel du point de départ bi ndax euh, yaakaar naa Seydina Omar moo waxoon ad-diinu mabniyun ala naql la ala al-aql euh, kon nag fekkee da nga doon jullit looy def lu ne sa point de départ moo doon alxuraan ak sunna kon nag économie islamique point de départ mooy alxuraan ak sunna économie conventionnelle raison mooy point de départ bi teewul nag économie islamique boo ci duggee da nga sam xel ni fànn yi diine yëpp waaye nag li ko jiital mooy point de départ bi mooy mooy mooy euh, alxuraan ak sunna source kon nag l'islam boo ko seetee euh, day diine joo xam ne jàpput ne doomu aadama dafa war a nekk ci kaw suuf di def ay ibaadaat euh, du jariñoo ci àdduna dara du développé itam doxinam ci àdduna Euh, ndax am na ay waxul man xarama zinat laay la di axraja li ibadihi wa tayibat min a risq qul hiya lilladina amanu fi lxayati dunia xaalisatan yowm kon nag euh, l'islam day diine joo xam ne dafa bëgg doomu aadama nekk ci kaw suuf di jëflante ak àdduna di di di di di jariñoo àdduna waaye nag doo ko jariñoo lu dëppook ndigal suñu borom walladi anshaakum min al ard wastaamarakum fii kon nag loolu loolu itam lu am maanaa la loolu maanaam li li nga xam ne moo ko gën a gën gën a xóotal sax mooy gën sori foofu ndax suñu borom bi mu yebal doomu aadama ci kaw su doo ko jox responsabilité wa id qaala rabuka lil malaaikati inni jaailun fi l ardi xalifa qaalu atajxalu fiha yufsidu fiha wa yasfiku dima wa kon nag bi suñu borom waxee malaaka yi neen damay wàcce représentant ci kaw suuf ñu ne ko ki nga wàccee day tur deret dafay def dafay def xam naa loo xam ne xamu leen ko kon nag doomu aadama ci suuf ci kaw suuf dafa am responsabilité développé àdduna ndax Euh, dafa am xilaafa euh, responsabilité xilaafa gu nekk ci moom goo xam ne suñu borom da ko yebal ngeen mu représenté ko kon nag boo xoolee ab jullit amul benn activité boo xam ne daf koy def boo xam ne activité bi àdduna képp la activité bu muy def rek activité àdduna da ko war a def waaye da ci war a xool alaaxira euh, ni ngay jaamoo yàlla wa ma xalaqtul jinn wal insa illa liya'buduni jaamu dooni jooju dafa yaatu booy julli di jaamu yàlla booy julli na ngay jaamu yàlla waaye booy jënd ak jaay da ngay jaamu yàlla booy lekk da ngay jaamu yàlla jëf jooju yëpp da ngay jaamu yàlla àdduna ak àlaxira li naa la séparation de l'église et de l'état euh, ci dine ci l'islam jëf jooy jëf ci àdduna gannaaw da ngay bàyyi xel àlaxira ñaar yëpp la boole euh, kon nag nit dafa am responsabilité ma doole ndax nee nañ euh, représentant bu suñu borom la ci kaw suuf waaye itam in aradna al amaanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yaxmilna wa ashfaqna minha wa xamalaha al insan innahu kaana zaluman jahula responsabilité bi suñ borom jox doomu aadama dafa am doole kon nag ab jullit bu nekkee ci kaw suuf fekkee dafa nekk ci système ci ibaadaata mu jóg ibaadaat nekk muamalaat nekk ci système politique nekk ci système social nekk ci système économique lépp dafa ànd ak bàyyi xel alaxeer ak bàyyi xel yàlla kon ab jullit man mënut ne damay politique wala damay def économie wala damay def finance boo noppee delluwaat sama diine wala lu am maanaa la ndax boo xoolee baatub diine euh, ci arab walla ci lislaam bokkut li muy tekki ak baatub religion ndax baatub religion am nag ñoo xam ne li mu tekki da dund sag dund bu ajuma wala samedi wala dimanche nga dem def say ibaadaat mu jeex lislaam nag euh, dafa jàpp ne jullit bi dafa jébbalu koo xam moomatoo sa bopp dara kon nag looy def lu ne da nga war a bàyyi xel yàlla kon nag say say say muamalat ak say ibadat yëpp ah, suñ borom ah, da nga ciy tenir kon suñ borom kon nag ci gàttal ci tënk ndax eh, jamono jaatuut ah, maanaam économie islamique ci ñaari ponk la wéeru boo xam ñi borom xam yi ci mujj liggéey nga xam ci lañ ko day ci ñaari ponk la ja dajale bu mbug njëkk bi mooy ci tawxiid la weeru beneen bi ci concept xilaafa la wéeru tawxiid mooy li ma doon leeral léegi boo xasee ne jullit nga moomatu sa bopp looy def lu ne dafa war a déggoo ak lii la suñu borom digal ak bëgg bëgg suñu borom euh, kon nag Muhammadul Xasali mi ngi wax ñeenti étape yoo xam ne iman war na cee feeñ bu njëkk ba mooy booy wax shahada ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga xam sa mu am boo xam ne dafa war jóge sa xol waaye ba ci gën a xóot ba ci mujj mooy dafa war a xe dafa a feeñ ci mboolem say jëf looy jëf lu ne yëg ne yàlla ngi lay gis kon nag boo demee ci banque def transaction yëg ne yàlla ngi lay gis looy def lu ne nga bàyyi ci xel yàlla kon nag ponk bu njëkk boobu ci économie islamique mooy wane ne doxiinu économie doxiinu jullit ci économie bokkut ak doxiinu ko du jullit ndax ko du jullit mën nga def transaction xam ne boo ko xoolee ci àdduna wala ci loolu lépp mën naa dëppoo waaye yàlla doo ko bàyyi xel boo def julli nag ñaari ngay boole da nga xool ba xamul dëppoog loi dëppoog transaction ba pare dëppoog yàlla boo amee lenn lu lu ci nëbbu loo xam ne itam jubut nga xam ne yàlla nga lay xool nga bàyyi ko xel kon nag loolu di daan différence bu fondamentale entre approche économie bi nga xam ne moom la ñi du jullit am ak bi nga xam ne moom la jullit am beneen bi ci topp mooy concept kon concept tawhid bi noonu lañ ko war a déggee concept tawhid ni ñu ko war a déggee mooy ab jullit lu mu war a def lu ne dafa war a bàyyi xel yàlla kon nag booy def transaction économique booy def transaction financière booy nekk ci politique looy mën def lu ne dañ ko a ne boo liggéey am na comptabilité booy ndax euh, xalifa xalifatu suñu borom nga ci kaw suuf te suñu borom dafa am euh, amaana responsabilité bu mu la jox boo xam ne boo liggéey dana laaj noo ko def kon nag lu mat a bàyyi xel la Euh, concept xalifa boobu itam day day day wane ne suñu borom am na fu mu teg doomu aadama waxoon naa sànq ne ma xalaxtul jinni wala insa la ya'buduni kon nag ab jullit amul différence entre ak jëf joo xam ne jëfi àdduna kese la ak jëfi àlaxira jëfi àdduna jooy def rek am yàlla ci biir fekkee doxoon kon na nga war a doxee li ngay jëf lépp jaamu yàlla lay doon suñu borom it wax la xalaxnal insaan fi ahsani taqwim dal wax wala xad karam naa bani aadam wa xamalnaahum fil barri wal baxri wa razaqnahum min at-tayyibaat faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdilan loolu itam di wàcc waay bu kawe kawe am suñu borom dafa euh, taral doomu aadama jox ko responsabilité waaye loolu li muy tekki responsable ak foofu suñu borom teg dafa tekki ne dafa am ay responsabilité ndax doomu aadama dafa am ñaar li ñuy wax relation verticale mooy ay ibaada tam digganteem ak suñu borom mm-hmm. waaye itam dafa am ay relation horizontale ay muamalaatam li muy seq ak nit ñi li muy seq ak environnement li muy seq ak xayawaan yi li muy seq ak yooyu yëpp suñ borom da koy natt li tax nag moo am njariñ ci finance islamique mooy amaana boobu ak responsabilité boobu suñu borom boo liggéey daf lay laaj comptabilité. donc responsabilité lañ koy wax bu doon utiliser baatu anglais accountability la ñuy wax baatu anglais bi moo gën a xóot ndax accountability mooy loo xam ne da ci ciy nekk comptable. kon nag loolu mat a bàyyi xel la kon nag loolu ci liñ jëm ci finance islamique mooy doomu aadama mënta jóg eh, dem def transaction financière boo xam ne mën naa dëppoo ak loi comme ni ngeen ko gisee li war a crise financière bi bu ñu ko xoolee duñ ko mën a jaar fenn waaye ci biir xam nañ ne baaxut hmm. euh, laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil boo defee transaction boo xam ne jaar na ci yoon jaar na ci banque te yaa ngi lor doomu aadama boo def jullit doo ko mën kon nag dina gis euh, différence euh, loolu ci finance kon nag loo ci tënk mooy économie islamique économie islamique boo xoolee boo xoolee économie euh, libérale léegi-léeg da nga xool ci côté da nga naan économie islamique libérale la gën a jege lay xool socialisme nga ne économie socialiste la gën a jege waaye fu ci ne yee ci am njariñ fekk na l'islam sedd ko loolu lépp li muy tekki nag mooy doomu aadama dafa am cob teg xalaatal boppam waaye départoon ci li ko soloon suñu borom diggale ci lay am lu gën a yaatu ndax boo xoolee euh, maa ngi koy def ci benn séminaire bu ñu leen wax barki dem di Euh, lislaam li nga xam ne ci biir diine noonu lay encourager nit ñi ñu investir seen xaalis noonu lay bañ yi itam nit ñi yàq xaalis yooyu yëpp ay aaya yu yu wàcc alxuraan la ma jël ci exemple bu gàtt ma jëloon asaka ndax islam boo amee xaalis sunu borom dafa jàpp ne sa xaalis boobu way ñàkk ñi am nañ ci droit boo boo doon natt asaka nga am kër goo xam ne yaa ko moom sa bopp nga am geneen kër goo xam ne defoo ci dara bu kër googu doon jar cent millions nga xam da nga ko bàyyi noonu rek kër ga bu at mi jeexee danga koy dañ ciy dindi asaka waaw boo jëloon kër googu loué ko asaka ji tulias bi képp nga koy dindi nga xam système économique islamique day encourager investissement du encourager thésaurisation du encourager di yàq mën nañ koo topp noonu nag ba suba wàll goo ci jël rek loolu nag ci ci conclusion yi ñu jëm mooy wane li tax mu doon solution ci problème yi nga xam ne moom la tubaab yi am kon nag ci gàttal loolu loolu loolu la bëgg leer ci économie islamique ñu jàll ci finance islamique finance islamique itam xam naa da ngeen ci dégg lu bari ci rajo bi ñu na leen mudaraba musharaka wala ngeen ci internet bu lu nekk loolu lépp xëy na dëgg la mais dafa am ay ponk yu mu wéeru ponk yooyu nag fekkee comprendre nga ko dana am njariñ boo gisee finance islamique lu ju bare bari am aw jafale am amoon jafe-jafe ci jàngin wi man formé naa ay institution yoo xam ne am na ñu leen formoon ci finance islamique bi ma leen laajee ba mu jeex ndax finance ci réew mi yenul bi ma leen jaaralee philosophie wan leen économie islamique wan leen l'islam fa mu jógee jàngal leen ko dañ ne ma bii moo gën système bu mën a am ci kaw suuf kon nag looy jàngale finance islamique dafa jekki-jekk loo xam ne dafa xew ndax xëy na jot gi may ñu defar historique bi historique moo di daanaka 30 ans la feeñ ñun ñi nag nee nañ lu tax finance islamique ba euh, alxuraan wàccee ba léegi ndax ay yi ñu wax ci kanam yëpp boobu la wàcc mi ngi fii te kenn waxul lu ci jëm ndax lu jiitu loolu sax ndax lu jiitu euh, maa ngi waxtaan ak Cheikh Tidiane léegi ma ne ko li am xorom ci àdduna yi léegi dañoo dem ba euh, civilisation musulmane civilisation islamique ñoo civilisé li des ci àdduna bi tubaab yi ngi ci des ñoo leen jàngal mathématique ñoo leen jàngal médecine ñoo leen jàngal chimie ba tey baat sax ba tey amul ci anglais wala français baatu chimie chimie ba tey arab la algèbre ba tey amul ci français wala anglais ñoo leen jàngal économie ci Ibn Khaldun ci muxaddama boo xoolee théorie Adam Smith jiitu na ko ay siècle te boobaa ko gën a complet boo xoolee théorie malthusienne da nga ko fekk ci biir te boobaa gën a complet ñoo leen jàngal sax finance baatub chèque ba demee chèque di ko tiire ci banque bi sac baatub arab la sukuk ci sac la jóge kon nag ba ci instru yi gën a moderne yu mujj yi sax jullit yi ñoo ko jàngal ñoo du jullit ñu dem ba jëmi jamono nag Euh, média yeeg presse bi ñu gëmloo ñu ñun religion moyen âge lañ boo xam ne mënuñu ànd ak modernisme ba jullit yu bari tàmbali gëm loolu te lu bari boo jëloon français ak boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj bépp baati arab la ndax am na jamono yoo xam ne euh, ci ci Andalousie bi julli defee juróom-ñaari siècle foofu ci Espagne boo bëggee jàng benn xam-xam moderne boo déggul arab du sotti nga xam ne grec ñëpp dañoo wàccoon seen langue dem jàngi arab ngir mën a moderne boo xoolee civilisation européenne ba empire ottoman di daanu euh, lépp boo xoolee même université moderne yi yi nga xam ne yu mag yi ngi gis ay Europe ak ay Harvard ak yëpp ci madrasa yi lañu inspiré wu système islamique ngi lañ jógee boo ngeen ko gëstoo mën ngeen ko gëstu internet bi am na sax lu gën a sori même église bi yu ci bari ni ñu ko doxalee ci système islamique lañ ko jàngale waaye nag yi fi dafa wëlbatiku ba mu ñu gëm gëmloo ñun suñ suñ suñ kii mënta avancé kon nag looloo taxoon ponk yi itam lu am njariñ la ndax tax bu ñu leeralee finance islamique ngeen mën ko xam ponk yi finance islamique yi juróom benn ponk la yoo xam ne yëpp ci alxuraan la euh, ponk bu ci njëkk bi mooy bi ma doon wax sànq ne doomu aadama dafa wàcc waaye bu digne bu am maanaa ci lislaam waxoon na aaya bi léegi ne suñu boroom dafa euh, wal ak ruum ci doomu aadama wàcce ko it qaala rabbuka lil malaayika inni xaalixun basharan min salsali min hamasin masnun fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi faqahu lahu sajidin waxoon naa itam sànq wallazi jaalakum xalaa xalaa'ifa al ard rafa baatum fawqa baadin waxan waxoon naa itam ne inni jaalun fi l xalifa kon nag loolu day wane doomu aadama dafa am dignité dignité nag li muy tekki mooy bu nekkee ci kaw suuf warta def jëfi asfala saafiliin dafa war a def jëf ju am respectable ju am responsabilité dafa am itam rôle développé àdduna li ma doon expliqué léegi ne l'islam ñooy civilisé àdduna boo xoolee empire islamique boo xoolee empire gréco-romaine bi ñëw empire islamique fi mu yóbbu xam-xam yu moderne yi jël ko ci grec yi ak fa yóbbuwaat diggante boobu keneen mënut dox lu dund ni toll te gannaaw ay Seydina Omar gannaaw xulafaa rachidun expansion bu am doole loolu itam mooy dignité bu nga xam ñi dañu am responsabilité développé àdduna waaye nag daf ñu ko n'importe comment dañ koy defe defee noo xam ne dafa dëppoo ak jàngale suñu borom beneen bi ñaareelu ponk bi euh, finance islamique boo xam ne ponk yi itam li ma jublu bu ñu demee ba leen riba dafa xaraam wala xaraat dafa xaraam wala maysir dafa xaraam wala kenn mënti jënd dara jaay dara te ko ci yii la wéeru bu yi leeree sa bu boobaa buñ ko wax dana yenu maanaam beneen bi ci topp mooy ixtiyaar tubaab di ko wax libre arbitre libre arbitre mooy ci biir dogalu suñu borom suñu borom may na doomu aadama mu def lu baax am lu baax def lu bon am lu bon xam ngeen ina ina laa laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim ixtiyaar boobu nag boo seetee euh, ci civilisation occidentale seen philosophie boo jëlee ku mel ne Kant moom la tubaab bi jël xëcc koo xëcc xëcc xëcc ba far jël diine sax dugal ko ci biir loolu ba ñoom dañuy dem ba jàpp ne diine sax xel moo ko yaatal xam nga xel lu am maanaa la euh, maanaam xel boo ko seetee boo ko doon seet ci mathématique da nga naan euh, condition nécessaire la ci diine boo jaamu yàlla faw nga tulli sam xel mhm. ak borom moom lu lislaam tere dañ naan la boo ko ma dindi sa loxo nga dindi ko addis boo ko mënta dindi fekkee la boo ko dindee la muy jur moo moo moo kii nga nga nga wax ko bu dee wax nga bañ ko soxal kon nag loolu faaw nga jariñoo sam xel donc pour nga jaamu yàlla faaw sam xel waaye nag xel bon xool ci mathématique du condition suffisante condition nécessaire la du suffisante xel dafa am fu mu yem dafa am limite moo tax lislaam départ bi mooy source yi alxuraan ak sunna ak ijma ak yi ci topp nga jariñoo sam xel tubaab bi nag dañuy jël xel muy lépp xel nag am na foo xam ne àggu fa kon nag ixtiyaar boobu am na ci diine waaye xëy na ni ko tubaab yaatale àggu fa mooy euh, loolu itam lu am xorom la da ngeen gis bi su set ñu naan la nangam principe des droits de l'homme nangam nangam te l'islam moo jiitu ci droit de l'homme yaa ayyuhan naas inna xalaq inna xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li ta'aarafuu inna akramakum inda llaahi atqaakum loolu mooy principe égalité bi gën a fort ça veut dire que islam dañ ne la différence bi différence bi peuple yi am mooy enrichissement wuute lu yokk la waaye ci biir wuute yooyu nag ñii xees ñi ñuul ñi xereer ñii mel ni ñi mel naa ñi ci gën moo ñu gën a jaamu yàlla ina akarmukum akarmukum ama la atqaakum kon nag égalité mënta passé foofu ndax kenn ku ne la ngay gën sa moroom mooy la ngay jëf sa diggante ak sa borom principe boobu itam lu am maanaa la boo xoolee ci finance islamique itam principe yu bari yi ñuy tëral dañuy weeru ci lii beneen bi di fraternité universelle mooy nga xam ne ma maa ngi conférence bi ma nekkoon euh, ci euh, bi ma demoon daaw Harvard University euh, États-Unis dañoo amoon benn panel boo xam ne ñu ngi ko tuddoon FBI ko FBI comme FBI bi nekk États-Unis waaye FBI mi ngi tekki faith based investments investissement yi nga xam ne ci pas-pas ak diine la wéeroo waaye bi ñu doon def débat yi boo ko xoolee ci biir rek dafa lay jàpp ndax lislaam boo jàppee bisimilahi rahmaani rahim nga ne rahmaan maanaam suñ borom yërmandeem dafa daj ci ñëpp ci àdduna yaatu gi ak buñ dee wax tolérance ak yaatu gi lislaam am yenn dini amuñu ko euh, fraternité universelle boobu am ci biir itam mooy boo dee jullit dañ lay wax nga def lu dëppook sharia waaye waxuñu la bul jëflante ku du jullit man ngaa def transaction ak ab juif wala koo xam ne sax gëmul yàlla rawatina université boobu itam gis nañ ci biir alxuraan su borom di wax ne boo reyee benn nit mel nga leen doomu aadama yëpp loolu itam dara mënu ko weesu kon am yëpp ay concept yoo xam ne la dañ ko créé bëgg a gëmloo nit ñi ne l'islam dafa safaanoog loolu te fekk l'islam moo leen ci jiitu bi ci des mooy sens confiance mutuelle ak responsabilité responsabilité lu am maanaa la ci doomu aadama ndax wax naa leen sànq wax nañu ay yi nga xam ne suñu borom dafa bind lu bari suuf ngir doomu aadama jàppandal leen ba ci weer weeg yoo xam ne xëy na sax àggaguñ ci waaye nag loolu li mu bari bari wax doomu aadama ne yaa ko moom daf ne walillaahi miraathu samawaati wal ard nag loolu suñu borom da ko dénk doomu aadama buñ la dénkee doomu aadama nag bu ñëwee dañ leen laaj nga rendre compte Sëñ Tuubaa bi mu dem ci géej gi dénk borom daaru njaboot gi ak taalibe yi bi mu ñëwee borom daaru doo ko rendre compte kon nag Euh, responsabilité boobu lu am solo la loolu itam li am maanaa la ci finance islamique parce que boo ñëwee euh, fekkee doomu adama suñu borom yéegal na ko jox ko dignité bu am doole jox ko mu nekk représentant ne ko àdduna bi war nga ko mën a développer war nga ko mën a yaatal li ci topp itam yaatal googu dafa am ay sart mooy nii nga ko yaatal te bu la naa laaj boo xam ne nga ko yaatale noonu la kon nag boo demee bay def transaction financière aku banque wala ak nit wala nga ci séntu ëllëg comptabilité ba nga defal suñu borom yaa ayyuha alladina amanu la taakulu amwaalakum baynakum bil baatil boo jekkoo sa morom mën a lekk alalam ci loo xam mën naa dëppoog yoon ak dëppoog banque yi te dëppoot ak yàlla bu yemal xame yàlla da la koy laaj kon nag jullit ñi muy doxee parce que sam ci économie ak finance bokkul ak ni nga xam ne moom la euh, kutu jullit di doxe bu mujj bi ci ponk yooyu moo di euh, adl justice bu baat boo xam dafa ñëw lu bare bare bare bare ci alxuraan wa ida xakamtum bayna naas in an taxkumu bil adl adl boobu moo tax boo gisee bu sànq bu ci kanamee incha allah bu ñu leeral riba li tax suñu borom bañ riba day demee noo xam ne euh, su fekkee ni ñu koy doxale lañ koy doxale banque bi dana lor doomu aadama wala doomu aadama lor banque bi te dafa bëgg euh, saa yu transaction bi kenn bañ a lor sa morom xam naa jot gi mayewu ko waaye am na euh, xese boo xam ne euh, Bilal bi mu jëlee benn xeetu tendrement benn saak xeetu tendrement weccu ko ak ñaari xeetu tendrement yoo xam ne bokkut qualité yi bokkut kay jox ko ñaari saak saaku tendrement yoo xam ne qualité bi moo gën a ñàkk solo qualité bi mu am ñoom ñëpp ñu d'accord ci transaction bi ba seen xol sedd mi wax yonte bi yonte mu ne ko dafa am riba dafa araam léegi li ngeen def da nga jël sa saako tendrement nga jaay ko xaalis ba nga jënde ko lu tolloo li ngeen soxla ci tàndarma jee te boo xoolee bii ñoom ñaar d'accord nañ jubóo nañ ci waaye alxuraan dafa bëgg justice bu bëgg kenn bañ a lor loolu tam concept bu bari bu ñëw ci finance islamique la boo xamul yi nag léegi la ñu leen nangam dafa aram wala da da nga ne mais pourquoi léeg-léeg nga jàngal ñun dañu ba ay banquier li ñu nga xam ne système conventionnel ci li ñu def 10 ans 15 ans léeg nga xam ne benn affaire <laughs> boo xamee lii nag xam li ci liñ ci jublu day day daal di am Euh, léegi nag euh, li ma bëggoon tënk ci gàttal mooy finance islamique xam-xamu finance islamique wax naa leen économie islamique ci ponk yu mu wéeru wax naa leen euh, finance islamique ci yu mu wéeru source fan la jóge source yi xam-xam yi dini yëpp jóge la jóge muy alquran source bu njëkk bi wala sunna wala qiyaas ak ijma ak qiyaas ak istihsan ak fathan sawabi ak charaman naa ak source yëpp nga xam moo ne ci lislaam li muy tekki mooy suñ leen ne riba euh, dafa baaxul nga ne fi nga ko teg ci dine nga ne kenn benn aaya ne ahalallaahu al wa harrama riba harrama riba leer la buñ ne la lépp xaalisu nit war ko fay te fayoo ci daganul nga ne ko teg nga ne xëy na gisuma koy alxuraan waaye yonent bi naan na matlul ghina dulm buñ ko seetee nekkul ci addis wala yooyu ñu ne la mi ci ijma wala mi ngi ci lii wala mi ngi ci lii am na xese mooy nettali boo xam ne xëy na ci xorf lañ koy jëlee ndax ci kanam tuuti naa ko leeral wax ñi nga xam ne ñoo liggéey charia ci lislaam contra islamique dañ naan la booy booy booy jëflante ni da ngeen woon contra bu leer mu ay nit ñu majeur ñoo xam ne dañoo ànd ak seen xel kenn forcé wu leen léegi nag am ku ne boo ñëwee ñëw ci euh, siège u euh, Moustarchidine wala Moustarchidaat soxla ndox fekk fi distributeur boo xam ba xaalis mu jox la caisse boisson nga dugal sa xaalis mu jox la ko est-ce que ñaari parti yi yi seq remplir nañ condition boobu te daa dem am jafe-jafe parce que diine da nga war a topp ba mu ba mu ba mu yenu maanaa waaye bu ñu toppee ne mënti nekk du dem du sotti léegi nag ci li ko jox fuqahaa yi ñi nga xam ne ay spécialistes fiqh muamalat ñu tàmbale ci alxuraan di wër tàmbale ci sunna te xool usulu diine yëpp ñu seet ko ba xëy na conclure ne ci bu ñu ko basé ci orf nii lay demee loolu xam moom finance islamique maa ngi ko wax si ñaas léegi nekk lu passionnant la <laughs> ci wet wet goo ko jël même ñi nga xam ne ñooy ñoo ñooy jàng charia ndax bu dina leen léegi maanaam distributeur automatique wala moderne moyen moderne bu bees te nga bëgg a xam ba xam araam na wala dagan na te nga war a jaar ci source si doo ko génne sam xel da nga seet ñoo xam ne xam nañ alxuraan xam source si mokkal ko ñu di ci waxtaan di ci débat di ko seet di ko seet ba juboo génn fatwa lii kat nii la ko lislaam gisee kon nag euh, source yi foofu la jóge ci biir source yooyu nag li nga xam ne isla finance islamique dana ko jëriñoo lu bari bari mooy maxasid sharia maxasid sharia ni ko Muhammadul Haas leere kuliyaatul xams mooy li nga xam moo tax a jóg sharia mooy euh, protéger diine yi doomu aadama diine doomu adama dafa war nekk ci env euh, dafa war nekk ci environnement état bi dafa war nekk ci doomu aadama julli dafa dund boo xam ne di protéger diineem boo xoolee constitution yi mel ne constitution États-Unis lu tax mu gën a bari diine yeneen constitution yi ñu bari bu jógee Europe dafa daw dañ leen daxoon ngir diine boo gisee seen sigle nekk in God we trust waaye boo seetee constitution bi ay nit yi diine ñoo ko bind ndax boo protection diine dafa doon lu jafe loo xam ne ñu jiital ko teg ko ci donc ponk mu njëkk boobu ci ci xam si yooyu mooy mooy diine bi ci des mooy bakkan doomu aadama nit il faut mu nekk foo sécurité foo xam bakkanam dana ñoŋ bi ci des mooy intellect am xel boo ko amul doo mën a jaamu yàlla foog nga am intellect doo ko mën a jaamu yàlla bi des mooy nga mën a am soxna mën a am i doom bi des itam sa sa alal mën a ñoŋ te gis ñu ci bari yonte bi tudd na ko ci euh, xot boobu mujj bi mën a def bi bi mujj def kon nag maxasid charin yi lu ñuy jariñoo lu bare bare bare loo xam ne xëy na yaatal fii yaatal gi leerut waaye li ma ci mën a joxe misaal mooy mën nga gis loo xam ne dañ ne dafa xaraam waaye bi ñu xoolee ci maxaasid charia yi ci communauté bi muy loo xam ne xëy na euh, njariñ la mopp ci kaw mën nañ koo daganal ci mu yaara fa mu war a jaar ma joxe exemple euh, boo jëlee communauté bi nga xam ne dañoo nekkoon Canada musulman yi ba ñu demee ba dajaloo ne ñun kat ku fi bëgg kër il faut nga def li américain naan mortgage il faut nga dem lebi ci banque bi ñu xëy sa kër pendant vingt cinq Euh, léegi nag ñu dem ba xam ne loolu dafa am riba ñu ne ñun bëgg ñoo def lii léegi nag nan la ñu war a def parce que dañuy toog bañ ami kër bi ko fuqaha yu seetee ci fiqh muamalat waxtaan ci ay léeg-léeg ay ati at lay duré ba génne fatwa leen mën ngeen ko jël ndax boo ko seetee lor yi nga xam ne ñàkk am kër ci communauté musulmane moom leen andil bu yàggee xëy na communauté musulmane musulmane sax dootu amati foofu ndax xëy na dootuñu amati kër ndax seen diine du ñoŋ seen intellect du ñoŋ seen dara du ñoŋ te loolu mooy kon nag loolu itam liggéey bu du jeex la boo xam ne bu bu bu intéressant la nag parce que fi ne boo demee ci àdduna forum yu bari na yoo xam fu xaay dañuy daje di di di kii yu bari ci man mel noonu. kon maqaasid sharian yooyu itam gannaaw bi ci maslaha yi nga ñëw ci maslaha yi euh, xam naa temps bi des euh, yi nga xam ne euh, mooy application maqaasid sharian yi nga xam ne ñu ngi ko tënk ci ñett mooy xaajiyaat yi ba yooyu mënta ñàkk ak besoins complémentaires yi ak taxsiniyaat yi maanaam lu mënti ñàkk ñu mel ne lekk wala naan nga xam boo ko def da ngay fàttu yu mënti ñàkk la xaajiyaat xëy na mooy loo xam ne boo jógee fii war a dem biir dëkk ba di liggéey boo dee dox ak sa tànk bu yàggee nga am jafe-jafe kon nag euh, xamatoo xëy na xaajiyaat la taxsiniyaat mooy xëy na loo xam ne xëy ne mën naa ñàkk loolu nag bu may def séminaire ak banquier yi su ma daanee rek ñu ne ma laa théorie des besoins de Maslow ci islam côté boo dem nag boo dem ba ci aéronautique ba ci gravitation lépp ci l'islam la jóge waaye ñeenti siècle loolu juróomi siècle da nga gis baatu tubaab boo xam ne mooy jëlaat même théorie bi léeg-léeg da ko recopier directement ñu ne théorie masla ñun ñu julli di ñu ko jàngalaat nañu théorie <laughs> te gis nga maslaha place bi maam ci diine kon nag ci tënk ci source yooyu la jóge jógee léegi fiqh muamalaat nag ni ngeen ko xamee xam nga islaam islam xaqiida la ak ak fiq ak ak axlaaq xaqiqa xaqida ak axlaaq daanaka yu fixe la fiq nag dafa dynamique ni mu dynamique yi ci biir fiq da nga am xabaadaat muy loo xam ne lu fixe dañ naan la boo julli ne ngay jullee moom ay muamalaat muamalaat nag euh, ci biir am na ahkam siyaasiya xam-xamu politique criminelle chaxsiya familiale ak iqtisaadiya wa muamalaat muy transaction commerciale contrat et propriété ci biir bu mujj boobu nag ci la ci la finance islamique bi weeru ci source bu foofu lañ ko jëlee euh, kon kon nag loolu loolu loolu mooy tegandaayu finance islamique économie islamique ñaar yooyu la weeru finance islamique juróom-benn ponk yooyu la weeru ci source yi itam lay jógee léegi nag boo ko xoolee finance islamique mënoon nga ne euh, atte boo jël euh, bërki dem maa ngi def benn formation ak ay nit di leen defal murabaha biñ paree ñu ne ah ñi dal lii dal c'est la même chose euh, da ngay jënd jaayit mais lii dal mook mook euh, intérêt benn la aaya bi wàccoon euh, bi nga xam aaya bi wàccoon zalika bi annahum qaalu innamal bay'u mislu riba ahalallaahu al-bay'a wa harrama riba kon question bi ñu posé moom la ñu oon woon boobu di tekki ne kon finance islamique boobu la amoon yi nga xam moo dox ci diggante bi nag bi évolution jullit yëpp ñëw évolution yi ñun yi ñu mujj fekkee téeméeri at yi ñu mujj fekkee téeméeri at yu euh, siècle yi ñu mujj fekkee dafa doon siècle yoo xam ne yëre yu jullit yi à quatre-vingt-quinze pour ci colonisation lay nekk colonisation nag système tubaab bi lañ jël boo xoolee droit civil sénégalais euh, man bi jàng université Bordeaux am na benn tubaab bu fa nekk doon wax maa bind constitution Sénégal donc dañ fay bàyyi yu bari ci ba yu bàyyi yu bari benn bi mooy système bancaire bi boo xam ne dafoo toog charia tekkiwut nag ne finance islamique amutoon amoon na waaye amuñu woon moyen développé ko li tax mu développé at nag. xam ngeen ne depuis quelques années pays du golfe yi dañoo excédentaire en ressources de financement ñoo dem ba daanaka ñooy financer euh, économie occidentale man mii Citibank laa nekkoon am na ñoom fa nekkoon xam moom soppi ko na ba tey boobu premier actionnaire privé Citibank euh, Al Walid mi fi ñëwoon fan yii la woon nga xam ne système tubaab bi ju bare bari euh, naar yi ñoo koy financé crise pétrolière bi may ba naar commencé am xaalis nag naari golfe bi ba mën a dugal yu bàyyi ñoo jekk-jekk xëy nag ñun suñu xaalis duñ ko dugalati fu amut fu amut euh, fu am riba yow bëgg ma dëppook sharia tubaab bi nag comme dañoo xarañ njëkkante tubaab yi ñoo ñoroo ci finance islamique man mii bi ma nekk si di banque laa découvrir finance islamique ma nekk si di banque dem formation bi ñu dem Istanbul ma tase ak ay nit fu ngeen nekk ñu ne ma Bahreïn cité islamique man leen la cité islamique ñu ne ma dëppook sharia ci laa ko tàmbali gëstu kon nag ñoom Citibank depuis 97 créé na banque boo xam ne dafa dëppook sharia bi nga gisee ne xaalis bi bari na li ñuy wax private equity ñi anglais ñoo xam dañu yor xaalis bu du jeex bëgg ñu leen ko gérer ba pare bëgg mu dëppook l'islam dañoo wàcc li ñu def dem jàngi sharia dañoo dem ñu xarañ finance dem jàngi sharia lu am njëriñ la ci l'islam nag parce que changement yu bari bari ñoo ko ñoo ñoo ko indi taxawal ko euh, kon nag euh, euh, ngir bëgg ngir mën a gaawantu tuuti dama bëggoon rek wax principe yi nga xam ne moo moo maanaam borom xam-xam yi dañoo tënk finance islamique ci juróom principe euh, ci tënk ci lu gaaw ndax temps bi yaatu na yaatuwut ponk yooyu mooy mooy yi nga xam ne ndax boo ñëwee ci fiqh ibaadaat dañ naan li ngay dox boo ñëwee muamalaat dañ naan lii lañ tere boo génnee principe yi ñu tere mën ngaa def loolu la neex mën ko def fekkee terewuñ ko kon nag moo flexibilité ibaadaat faaw da dangay jar ñoo sam xel waaye nag dafa am ay limites yoo xam ne islam daf la ko posé kon nag principe bi ci njëkk di ci gën a siiw mooy riba suñu borom dafa bañ riba riba nag euh, boo nee suñu borom dafa bañ intérêt léeg-léeg nga waxoon nit mu ne waaye lu tax mu bañ intérêt man maa ngi yor sama xaalis jox ko nit mu di ci liggéey su ma fayal intérêt nu ma ci léegi nag ko nag faw boo xamee ne suñu borom dafa bañ riba nga xam lu tax mu bañ riba alladina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu cheytaan min almas dalika bi annahum qaalu innama albayu mithlu riba wa ahlallahu albaya wa xarama riba suñu borom daganal na jënd ak jaay te dagal na marge profit waaye dagal na riba riba mooy lan riba mooy xaalis boo xam ne day jur xaalis te du ànd ak activité su ma yoree sama xaalis nga ñëw ne ma abal ma un million ma liggéey ci ma jox la un million mi ne la fekk ñetti weer ba ma koy delloo delloo ma ci cent mille riba li tax ma doon riba xaalis bi laa la loué bañ na ci jargon bi sax taux d'intérêt le loyer de l'argent lañ koy wooyee ci lislaam nag xaalis amul du valeur xaalis intermédiaire la anti marchandise waaye doon loo xam dañ ko war a loué te li xam waruñu ko loué duñu jéemaay ci crise bi da ngeen ko xam ndax fekkee damay loué xaalis jox la nga ne damay jënd marchandise du waaye dem jaayee ko nangam nangam boo réussiré da nga fay sama xaalis boo réussiré da nga fay sama xaalis waaye nag islaam nangu na ne la man kat damaa bëgg a jëndi marchandise nga ne ma yow léegi euh, marchandise bi ngay jëndi est-ce que mën nga ci am bénéfice est que am nga ci expérience laaj la détail bu ma xamee luy dox la ma ne la kaay ma indi sama xaalis nga indi sa xam-xam ma joxal nga liggéey boo am bénéfice bi seddoo waaye nag boo defee li nga war a def lépp ab guerre am wala dara nga am perte dama ànd ak yow ci perte bi ndax ñu di liggéey. kon nag lislaam am na ñoo xam ne ci borom xam-xam yi dañoo dem ba jum ne lii américain wax time value of money maanaam valeur temps de l'argent dañ ne l'islam nangoo ko du dëgg la maanaam lislaam nangu na xaalis ci temps mu gagné xaalis waaye nag na jaar ci activité te ñu jaar ci lu leew ndax l'islam dafa jàpp ne fekkee banque bi da la jox xaalis nga dem liggéey lu mën a xew da nga ko fay banque moom du jël risque ci activité bi te léegi nag risque ak ak ki ñëw booy gañ ci da nga jël risque banque bi dafay bëgg ñoom ñaar ñëpp jël risque waaye bu fekkee jàpp ne ne kee mooy jël risque banque bi jël risque loolu affaire justice bi ñu doon wax àdduna bi ñu doon wax amatul kon nag loolu mooy logique bi nga xam ne moo tax ba bañ riba am na ñoo xam ne ci gannaaw demoon nañ ba ne l'islam bañu riba usure la bañ taux bu élevé même bu doon pour cent ko bañ waaye lii ne loolu nag mooy logique bi ci ginnaaw ndax boo jëlee nit koo xam ne sax deful activité ne day day day consommer comme moom jafe-jafe boo ñëwee ci jullit bi nag damaa soxla njëgu saako ceeb lebal ma quinze mille francs mu lebal la quinze mille ne la boo mu ko fay fay ma dix-sept mille mu mu mu consommé saako bi ci weer wi war la ko fay fekk situation mu amélioré wut bu la waree fay dana ñëw fay la quinze mille yi waaye deux mille yi des dana wuti feneen deux mille jox la ko bu ko amul nga sàkk ci moom pexe jamono yéen itam noonu lañu daan def ba mujj ñu jël seen alal jël seen lay bu mujj ñu jël seen doom daf ko jàmm loolu tax nag théoricien même ci occidentaux yi dañ ne intérêt de détruire ab société boo xoolee euh, euh, maa ngi liir bërki dem euh, Obasanjo li mu doon wax ci benn rencontre internationale moom la wax service de la dette loo xam ne alxuraan daf ko wax bu leer su fekkee da nga lebal nit xaalis mu ci teg intérêt nga yeexe fa mu tegaati intérêt da dem ba xaalis bi da ko fay ñett yoon wala ñeent yoon loolu nag bu yàggee boo ko defee am réew bu yàggee am na ñuy dee am na bari lu ci xew loo xam ne intérêt bi képp ko war loolu tax lislaam lislaam lu mu digal doomu aadama rek ngir njariñ la lu mu koy tere itam ngir daq loram la yam xaqulaahu riba yor bi sadaqaat yam xaqulaahu riba itam danañ ko gisaat ci kanam ñu jëm accéléré tuuti ndax euh, crise financière bi yam xaqulaahu riba la kon nag boobee ponk bu njëkk bi ci biir nag yaatu na ay riba nasian riba lu fadd ay riba yu bari bari am na ci biir waaye principe bi mooy loolu beneen principe mooy xarar lislaam dafa daq xarar ak maysir maysir ay yu leer li ci alxuraan maysir mooy loo xam ne ay nit dañuy daje euh, dugal seen alal ba noppi kenn gañe xeeti loterie loolu lépp dafa xaram euh, parce que baaxul société ndax day day day enrichir ñenn ñi di di di détruire ci des ki nga xam ne day dundee yaakaar di def loterie boo calculer probabilité fekk statisticien yi defar <laughs> calculer probabilité ne kenn une chance sur un milliard la am pour mën a gagné mu topp toujours yaakaar ne suba dina gagné loolu dafa Euh, xaraar nag moo ci moo ci gën a yéeme xaraar nag boo xoolee système bancaire conventionnel ak finance islamique ni nga xam ne moom la àdduna bi système conventionnel bi doxee euh, xaraar kese la xaraar mooy lan mooy boo ñëwee di dem mi mel ngay signé contrat assurance ne léegi dama bëgg a assurer sama kër gi ñu wax la clause yi wax la yëpp nga d'accord nga xëy xëy kër gi am jafe-jafe muy taw ci kaw lay ñu ñu ne kër gi la ñu assuré woon kat waaye tubaab bi assuré wuñ ko wala ñu ne oto bi oto bi la ñu assuré waaye pneu yu ci ay tappale yoo xam ne dama nett li benn waaye bërki tam dama dem euh, euh, dama jógee euh, Milan di dem Paris yaakaar di jënd benn billet ci internet benn waaye jënd ma billet bi ci bi ma jënd billet bi ba xëy war a embarquer pour dem Paris jële fa avion ma ñëw ba foofu ndaw cinéma danga waroon check online danga waroon def sa enregistrement en ligne ma ne ko dama ko fàtte defe na garawul mu waaye da ko fàtte mais 80 euros la ma coow coow coow mën ne ma 80 euros la ma ne d'accord après mu ne ma ñaata saag nga yor man ko benn man est-ce que déclaré ko ci internet bi man ko déedéet mu ne ma 80 euros ma coow mu ne ma ma jël saag bi teg ci kaw mu ne ma ëpp na 2 kilos kilo bu ne 40 euros ma xuloo xuloo xam ne aw ma solution ndax bu ma demee Paris damay raté beneen vol bi ma ne léegi naa naa naxante mu doo fay fii da nga wàcc dem ba ci gannaaw nga fay foofu ma dem foofu ne waaye yéen xarar ngeen di def parce que lii dafa haram et puis bu yàggee da ngeen ci am parce que clients yi ngeen di nax boo liggéeyee dina dal seen kaw ndax boo seetee bu ñu jëlee clients yoo xam ne chaque vol dana ci am 20 pour cent wala 10 pour cent yoo xam ne dañu sàggan ne Lamine Mbacké ba duñ def a def lañ ciy gàññee ci mais loolu it à long terme baaxut waaye dama wax wax sama wax ba son waa ji ne ma daal sëñ bi boo bëggee dem da ngay moom mu ci fay loolu nag mooy xaraar loolu lislaam di bañ lislaam dafa bëgg contrat booy dugg di ko signé ak nit ñu leeral lépp ba mu leer waaye duñ ko bind mbind mu tuuti wala ñu làq ci loo xamut wala ñu bind ko ci mbindum juridique avocat yu compliqué li américain naan fine print yooyu yëpp dafa xaraam kon nag transaction boo xam ne islam la nga ci dugg dafa war a leer kenn ku ne xam la ngay séntu ba lëggee boo amee nag ci biir loo xam ne dana lënt ba lëggee loolu it man ngeen defaat relation ak crise financière bi parce que cas yu mel noonu li ci ay litige man xam ma keroog moom mënoon dem tribunal dama dem tribunal mujj naa wax waa ji ne ko an sa patron mu ne aw ma pat fi wala nga ana patron ñu obligé nga ne ko kooku nel déer nga naan sa patron mu ne mënoo ci jot mais bu amoon solution du fay loolu kon nag loolu mooy xaaral loolu mooy deuxième principe boo xam ne daanaka principe fondamental Euh, fekkee mën ngaa jaar ci looy bu mën a lekk sa xaalisu morom ba jekk ko da nga koy def islaam nag dafa bañ loolu ndax yi ma leer noonu lépp suñu borom da lay sént waaye itam principe bu leer la boo xam ne nanguñ ko ci isla réew islamique loolu itam fekkee ni dañ jaar contrat yu leer yoo xam ne day aw yoon boo léegi instabilité du am cas yi tribunal doo am système économique day stable am sécurité beneen bi mooy bi ci gën a yomb mooy fekkee da ngaa nekk ci banque islamique wala système financier islamique mun a investir ci secteur boo xam ne secteur bu araam la ndax fekkee am nga pas-pasub ne man kat samay muamalat dama bëgg mu dëppook sharia mënumaa jóge ci loolu ba pare créer sama banque islamique ba pare dem di investir ci ay boîte de nuit yoo xam lu bon lañu fay def wala di ci sàngara wala ci loterie kon nag loolu tam yenul maanaam beneen bi ci mujj mooy l'islam musharaka la bëgg dafa bëgg banque bi borom xaalis bi associé ak borom xam-xam wala borom liggéey bi ñu ànd liggéey seddoo boo amee perte yoo xam ne jaar na yoon ñëpp def nañ la war a def ñu ñu accepter perte waaye nanguwut euh, entrepreneur bi féetoo risque banque bi toog loolu li muy jur bu ñu ba ci kanam dañ ko gis ci crise financière bi li tubaab bi naan déconnexion entre la sphère réelle et la sphère financière dañu dem ba finance bi ay bourse la yoo xam jëtu dara ak économie réelle bi xaalis ay milliards yu tourné waaye financé wut mbay financé wut investissement financé wut commerce financé wut dara ay ay maysir la ay xaalis yu tourné rek la loolu nag du wéy te itam day fexe ba tuuti nit ñu am xaalis mu yokk ba pare ñeneen ñi di di di dëkk ci jafe-jafe bu mujj bi nga xam moo ci solo itam mooy euh, finance islamique boo ko dee def boo jógee ci banque islamique mënuñoo rek dama soxla xaalis ndax l'islam dafa encouragé wut bor l'islam encouragé wut bor ci consommation euh, boo demee société occidentale yi euh, daanaka économie économie moderne ci bor lay wéeru dañoo gëm loolu ni ne li fekk nit ñaa ngi endetté wu ci la économie gën di dox maa ngi net lii ci benn séminaire bu mooy def ne leen man États-Unis bi ma njëkk am carte American Express nekk étudiant di doog ñëw dañ maa woo téléphone ne ma ni nga koy doxalee am nga 1 million limite boo góorgóorlu di ko fay correctement balaa am ñetti weer ñu joxaat la 2 millions balaa am at ñu la 3 millions nga xam ne léegi mujj na nga kër kër yi pour am 10 millions de bor mais 10 millions de bor yooyu loo koy jëndee boo amee carte bi da ngay dem ñu ne la Samsung s ñàkk ndax sa statut fi nga féetee li ngay liggéey nga dem def ko ci fekk vingt mille francs mën naa régler sa problème yi dugal ko feneen kon nag société de consommation li ma doon wax économie islamique dañuy dugal nit ñi ci ay consommation yoo xam ne ci ay bor lay indi loolu nag nañ gis ci kanam ne moo indi problème crise subprime bi kon nag principe bi li l'islam di wax mooy saa yooy def financement dafa wéeru ci dafa a wéeru en actif a wéeru ci dara maanaam boo ñëwee ci banque bi ne damaa soxla xaalis dañ naan la looy doy xaalis nga ne damaa